إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk jullit yu tedd yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi koy gërëm ci xéewalam yiñ mënta peeg di seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu di seede ne muhammad ab jaamam la woon bu yónni ci ñun ñu war a roye ca moom nañuy jaamoo yàlla ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax ci jébbalul seen boroom ba képp ci yéen buy faatu faatu wàlle jébbalu googu yal na yàlla jagleel ñu ko mbokk suñu borom yàlla day daf ñoo sant ñu topp ay ndigalam toppit la nga xam ne moom mooy yoonu jullit ña moytuloonu ñu topp ay tereem waaye topp la nga xam ne mooy ay noonam di noonu jullit ñi daa di def la nga xam ne mooy ak texe ñeel na képp koo xam ne daa topp yàlla topp yonent yàlla wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima ki texe dëgg mooy ki topp yàlla ak yonent yàlla yonent booba nga xam ne toppoon na yoonu boroomam woote woon jëme ci yoonu boroomam yoon woowu nga xam ni mooy yoonu texe saxaabaam yi wuy sikk ca woon jaaruñu woon fenn fu dul fa neex yàlla ca la leen yàlla yëkkati woon ci seen jamono ñu not mboole mi gox ya leen waroon yàlla may leen teddaange àdduna ak teddaange allaaxira loolee mbokk moom mooy yoon wax yal na yàlla xamal ñu ko ca jaarloo ñu ca gannaaw loolu mbokk jullit xamal ne lii nga xam ne mooy xeex bi neen caaxaan di xeex ak dëgg xeex la bu dul dagg ba ila yawmi diin ki jiite xeexu dëgg ba mooy suñu boroom ki jiite xeex xeexu bu ah ban ba mooy seytaan mi ñaan yàlla mu may ko mu dund ba ila yawmi diin loolu it mbokk julit suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam xabaare nañu loo xam ne munta ñàkk nee na sama xeet bii ma wuy si dey di xëy di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dana ca am mbooloo mu bari moo xam ne daañ dem toppi yahuudi ak nasaraan yi ba fu ñu dugg daañu ànd ak ñoom dugg foofee waaye it fa lillahi alhamdu noonu la ñuy béggale nee na ba baa yow mi diin di taxaw du ñàkk mbooloo ci sama xeet boo xam ne daañu sax ci diine jëme indi woon sax ci sama sunna yàlla na yàlla boole ñu ci mbooloo boobee ay yéen mbokk julit nañu xam ne jamono lu mu gën a yàgg dund diine di gën a jafe ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi bégal ñiy ñëw axiru zaman ne day li ñuy defal yàlla yool ba leen ci yàlla di fay dana mat juróom fukki yoolu saxaaba lu waral loolu mooy ngir jafe-jafe bay am fii axiru zaman ak na nga xam ne noonu la diine di tumuranke xam leen ne mbokk julit bokk na la mu war a gën a ragal lépp loo xam ne da koo rax ci biir diineem xoolal xadis boo xam ne yàgg ngeen koo dégg ci minbar bi dégg ko ci yeneen i jataay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man de yowmal qiyaama su ngeen dékkee seen bàmmeel da ngeen fekk jiitu naa leen ci sama déeg ba mu yàlla may déeg boobu nga xam ne mat na 600 kilomètres carré ma leen di woo waaye malaaka yi daañ xaaj la ëpp ci yéen ba ma leen dellu gannaaw ma ne yàlla ñi sama xeet lañu ñu ne ma xamoo lan lañu soppi sa gannaaw loolee kon mbokk jullit xamal ni moytul sa kemtalal kattan di soppi lenn ci doxalin ba nga xam ne jullit ñu jëkk ña noonu lañ doon doxe loolu day tax mu dox sa digganteeg ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyaama mbokk gis nañu ne coppite googee ana fan la gën a feeñe mi ngi gën a feeñe ci jullit ñi bi ñu demee ba yéeféer yi yàlla xëpp leen alal tey jii nga xam ne lépp luy alalu àdduna mi ngi nekk seen loxo tey taar ba nga xam ne mooy taaru àdduna mi ngi seen loxo ci industrie ba ci économie ba ci force militaire yi ci lépp loolee tax na lu ëpp ci jullit ñi am complexe yéeféer yooyee ba nga xamee ne nii ñi ngi kër këri guddeeg bëccëg ngir mel ne ñoom loolee nag la ëpp ci ñoom dañ koo jënde xooj seen diine yàq seen diine loolee mbokk mi ngi noonu ñu bëri jàpp ñam non c'est la mondialisation ah il faut doomu aadama yi mën a ànd mën a nekk benn la diine bañ lu woon ñu toléré ko ngir ne loolu kenn mënatu ko bañ léegi avec l'ordre mondial yii mbokk ay mbir la yoo xam ne tey yàq na diine yi la ëpp ci nit ñi nit yi tey jii loolu nag danay gën a feeñ ci bis yu mel ni bis yi ñu jëm xam ngeen ni fii ñeenti fan nasaraan yi am nañu feet gu rëy gu ñuy waajal buñ ca tegee une semaine mu am beneen feet bu ñuy waajal ñu koy tuddee 24 décembre ak 31 décembre mbokk lu bari ci jullit ñi dañuy jàpp ne ah déedéet 24 décembre kat mooy juddug Isa ibnu Maryam ca Isa ñun ñépp a ko bokk naam mbokk jullit Isa bul wax ñun ñépp a ko bokk danga naan ñun rek ñoo yeyoo Isa ñun ñooy farandooy Isa Isa dana wàcc yow man avant bis penc di taxaw dana denc ci chrétien yi dem ànd la nga xam ne mooy ak jullit ñi Isa sunub yonente la ñun ñii ñoo ko gëm ñoo ko topp waaye nag ndax ñun ñoo gën a xam Isa ibn Maryam yonent yàlla Muhammad ak i sahabaam ndax yonent yàlla muhammad ak i sahabaam mas nañ màggal juddug isa loolee mbokk doyoon na rek lay booleeg encore boo demee ci téere nasaraan yi seen kilifa yu màgg ya ñoom ñoo lay xamal ne juddug isa judduwul woon vingt cinq décembre comme niñ koy féetoo tey waaye ma nga juddu woon ay boori avril ngiree bañ chrétiens yi demoon ci feetu li ñuy tuddee le dieu soleil biñ daan màggal 25 décembre moo taxoon ñu toxal seen date boobu yóbbu ko foofu waaye même bu ca juddu woon ngalawaay xamal ne yow jullit sa yoon nekkul ci loolu beneen jullit bi ne ah non waa 24 de suñu néew ci mais 31 ñoo ko bokk lan moo ñu boole 31 mbokk 31 décembre dañ koy tuddee calendrier grégorien. dañ koy tuddee calendrier boo xam ni dañ naan tey deux mille dix neuf lan moo waral deux mille dix neuf mooy dañ koo basé ci juddug Isa kon muy calendrier chrétien yi ñoom ñu am yuñ ca gëm gëm-gëm yu bari yoo xam ne du xat ci xutba bi waaye bokk na lañ gëm gis ngeen bu minuy jotee képp ku jëkk naan sangara sa lépp day baax ci at bi yëpp moo tax ngeen gis sàngara sa di tasaaroo képp koo xame ne nii fexe na ba sa kër mi ngi leer guddi gi année bi yépp sa mbir day leer ñu tudde ko fête Saint-Sylvestre loolu kon aju ci seen diine ñun jullit sunu fin d'année moom mooy la nga xam ne mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tabaski sunu premier jour année mooy premier jour ca weeru tamxarit loolu mooy sunu ah atte ñun donte ne l'islam yoonu lu ñu ñu koy feet ba tey quatre-vingt-dix pour cent ci jullit ñi sax xamuñu loolu ba da ngay dégg ab waxkatu diine bu mag Sénégal gépp di ko coow nga dégg ko mu naan waaw tamxarit bi di Ashura ca la ca la suñu di suñu at di commencé ca mbokk ñu tudde ko Ashura muy fukkeelu fan loolee kon muy wane jullit ñi ni ñu réeree seen bopp waaye xam lool la nga xam ne nag mooy aaday nasaraan yi tey jii boo demee ci suñu école yi ne Sénégal gépp depuis que tubaab bi colonisé ñu ba bàyyi ñu ca la ñu bàyyee ñaari feet yu mag feet yooyu yépp day wane mandarga la nga xam ne mooy diine nasaraan di feet ci noyel bi ñu may seen doom yi tey wala ñu may leen ko suba wala fan yi ak la nga xam ne mooy feetu pakk loolu xale yi màgg ci loolu gimbi ci loolu dañuy dem ba jàpp ne lii lu naturel la waaye mbokk xale yi nekk ca loolu xëy na ay xale lañu waaye yow mi nga xam ne yaay mag bu majeur xamal ne sa borom yàlla day def ne bul ma toppal mukk bànneexu ñi nga xam ne dañoo réer mu yahudi ak nasaraan yi gannaaw li la dikkal ci dëgg te muy diini lislaam ji ku nekk ci yéen am na yoon bu mu jaar ngal la waay jaar leen ci yoonu yàlla suñu borom yàlla ne bépp xeet am na benn feet bu muy feet ngal la waay xam leen ne yéen jullit ñi seen feet ñaar rekk la amul mu ko ñetteel benn bi mooy tam benn bi mooy korité bi ci des moom mooy tabaski ba yonent bi ñëwee Madina fekk ñuy feetu daf na jullit ñi bàyyi yi leen feetu kéefér yi ñu am ñaari feet muy feet yooyee loolu nag mbokk jullit da ngay gis ne mbir la moo xamee ne nii lu dangereux la ci diine doonte ne nit ñi jàppe woon ko muy dara waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne képp ku nuru nuru lu aw xeet ca ñoom nga bokk man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku nuru nuru lu ci xeet ca ñoom nga bokk xam leen ne diine lislaam ji dafa am ñaari ponk yu mag yu jullit war a bàyyi xel am na sax borom xam-xam yuy xaabaabal ba naan sax mënees na koo boole juróom-ñaari juróom-ñaari lu ponk ngëm ca mooy lan mooy li ñuy tudde alwalaau lil islaam wa ahli wal baraatu min al kufri wa ahli jullit xamal ne sa diina du mat mukk lu dul da ngay doon koy farandoog lislaam ak njabootuk lislaam feeñal la nga xam ne mooy sa deñ gu mat sëkk ci kéeféer yi ak lépp lu ñuy jëfe ci seenu kéeféer loolee jullit da ko war a xam jullit dafa war a puukarewoo lislaam feeñal lislaam suñu borom yàlla bàkk leen ci loolu ne ana ku gën a rafet kàddu ci ki nga xam ne day woote jëme ci yàlla di jëf lu baax te fu mu toll di feeñal identitéem inna nii minal muslimin boo xoolee ci waxam ci doxalinam ci léppam da ngay feeñal inna nii minal muslimin man jullit laa di ko wax ca kaw di ko feeñal fu ne suñu borom yàlla nee na ana ban identité moo gën a rafet bi ay yéen mbokk jullit bari na lool ci téereb yàlla bi bari na lool ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dañuy tere ñu topp yahudi ak nasaraan yi borom bi subhanahu wa taala ne yow yonent bi tëralal naa la yoon waa ngi nii de toppal yoon woowu mën a tëral bul topp bànneexu ñi nga xam ne xamuñu dara ñoom duñ la mën a jëriñ ci yàlla ci dara suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne fexe leen ba bu leen mel ni ahlul kitaab yi nga xam ne ba leen yàlla joxee téere ba mu demee ba yàgg seeni xol daa wow koŋ ñu nekk ay faasiq yéen jullit ñi bu leen mel ne ñu mukk mi ngi noonu wala yakunu kallazina utul kitaab aaya boobu dalay won ne lépp loo xam ne ahlul kitaab ña nga ca yow jullit danga koo war a teggi comme naka suñu borom yàlla subhanahu wa taala waxe mbokk bu ñu xoolee suñu borom yàlla subhanahu wa taala bu dee ne yaa ngi nekk di bàyyi xel yow jullit lu mu néew néew fukki yoon ak juróom-ñaar farata la ci góor ak jigéen nga jàng ko sa làmmiñ wala nga dégg imaam jàngal la ko aay bii suñu borom di wax ca fatiha ihdina siraatal mustaqim ay yàlla yal nag ñu jubal ca yoon wu jub wa siraatal lazina an'amta alayhim yoonu ña nga xam ne da nga leen a gërëm muy yenente ya ak gaa yi nga xam ne ñoo leen rey gayril maghdubi alayhim wala daalin musal ma ci yoonu ñi nga xam ne da nga leen a mere ca mooy ñi xam dëgg bañ caa jaar wala daalin ak ña nga xam ne dañoo réer yonent bi alayhi salaam ne ñooñu mooy yahud ak nasaraan kon yow julit bis boo xëyee yaa ngi naan yàlla yàlla nañ ma may ma teggi yoonu yahud yi ak yoonu nasaraan yi suñu yonent alayhi salaam dolli ca loola daal di sunnaal ne la julit heure boo jógee di jàng ñaari rakkay fajar xamal ne la ca gën mooy bu jëkk nga jàng qul ya ayyuhal kaafiruun gannaaw ba nga daal di jàng la nga xam ne mooy qul huwallahu ahad sooy def shafa ak witre danga ca jàng ñaari saar yooyu soo waroon kaaba ga ñaari saar yooyu ngay jàng bal bépp naafila boo xam ne ñaari rakk yi kese la la ca gën mooy ñaari saar yooyu qul ya ayyuhal kaafiruun lan lay firi mooy ay yéen yéeféer yi man day la abudu ma taabuduun duma jaamu li ngeen di jaamu wala antum aabiduna ma aabudu xam leen nit li may jaamu muy yàlla yéen jaamuwu leen ko maadaama yéen a ngi koy bokkaale wala ana aabidu ma abattum du àdduna du yàgg ba ma jaamu li ngeen di jaamu wala antum abiduna ma aabudu yéen it tant que yéen a ngi nekk seen bokkaale gi xam leen ne jaamuwu leen yàlla kon lan moo des lakkum diinukum waliya diin tey leen seen diine maa ngi ci sama diine déclaration la boo xam ne góor jigéen mag ak ndaw ñépp ñoo ko war a def te yéen yahuudi ak nasaraan yi seeni doxalin seeni culture seeni aada seen diine lakkum diinukum ñeel na leen seenu doxalin waliya diin man am naa doxalin boo xam ne moom la ma sama borom xàllal ay yéen mbokku jullit suñ borom dañuy wax ne bu leen topp yahuud yi ak nasaraan yi ñoom day dañoo doon farandoo contre leen ca loolu mbokk loolu la ñuy gis partout dans le monde tey la nga xam ne mooy coalition jàppaloo goo xam ne yahuud yi jàppaloo nañ ko ak nasaraan yi di bombardé sunu mbokk jullit yi ca Syrie ca Irak ca Afghanistan ca fune fune loolee dañuy xam ne loolee feeñ ci jëf yi loolu it mooy la nga xam ne moo nekk ci xol yi jullit islam da la tere nga nuru nurulu yéeféer xam leen ne nuru nurulu ci zahir loolee bu yàggee dafay dem ba feeñ ci biir xoolal tey ji même islam rek nga xool biñ ko teqalee ay kër da ngay génn ci mbedd mi rek gis benn waay boo xam ne na mu soloo rek ngay xam ne kii day ci waa kër suñ caam la bokk ndax bëgg gëm bëgg suñ caam moo ko yóbbu ba buy dox colinam yépp loolee la ciy feeñ boo jàddee kon gis keneen ne ah kii moom waa kër suñ soo la bokk ndax ni mu soloo nii waa kër suñ soo ñooy soloo noonu loolee kon day wane ne ah benn relation la bu am entre xol ak jëf doomu aadama bi loo yàgg jëf bu yàggee mu yàgg sa biir xol lépp lu nekk sa biir xol bu yàggee mu daal di feeñ ci say jëf loolee lañu xam ne mbir la boo xam ne munte ñàkk ndawal jullit ñi nañ xam ne tey jii lii xew dans le monde entier fête yi buy ñëw des mois avant publicité yi dàqante réew yu bari taaral seeni mbedd sunu ndaw ñi commerçant yi xamul seen diine dem jëndal leen ay pétard yu dul jeex loolee mbokk nañu xam ne réere diine moo ko waral ba islaam di am doole day Omar ibnul Xattaab ñu jógee Makka madina yooyu yépp dugal ci lislaam ba yàlla may leen ñu tijji capital yu ruum yi nga xam ne mooy Palestine ak la ko wër chrétiens yi nekkoon ci biir en islaam dañu leen a aaroon may leen jàmm waaye nag bokk na charte ya nga xam ne dañ ko tëralante woon ak ñoom mooy lépp lu aju ci seeni feet day xam leen ne du ngeen ko jël mukk di ko feeñal ci doomi jullit ñi loolu mi ngi noonu ba ngeen dee feetu feetu leen ci seen biir kër waaye abadan du ngeen dem mukk di won doomu jullit ñi la nga xam ne mooy seeni feet loolu mbokk xoolal nag tey jii da ngay gis ne jullit ñi ñoo raw chrétiens yi ci feet yooyee loolee mbokk waliyas billah mi ngi noonu sama benn mbokk bu nekk fii samb nee na benn añe dafa dajeeg benn magoom chrétien na ko waaw doo def ak sa feetu biig gi mu ne ko waaw ñun dey doon nañ feetu waaye ñun suñu sàngara sa doyul ndax jullit ñi ñoo ñu ëppoon ñoo naan lépp yal na yàlla musal ñu ci loolu loolee mbokk da ngay gis tey jii 24 31 ñan ñooy fees la nga xam ne mooy mbedd yi loolee mooy li ëpp ci jullit ñi la lan moo ko waral parce que dañoo doon ñoo xam ne xamuñu ci xaw te gisuñu ko leen xamal xamuñu gisuñu ko leen xamal du dagan ci jullit mbokk jullit la nga xam ne mooy feetu chrétien am jullit di ca soppi daraam du ne man kat sama njaboot du ñu dem sama kër laa jënd samay ganaar lekk ak samay njaboot abadan déedéet mbokk jullit loolu kooriteeg nga ko am ak tabaski loolu mi ngi noonu islam daa yoonal ci yow tant que am nga sa doole lu mu néew néew boo amee demal rey xar njaboot gi yëpp noos korite rey reyal loo mën a rey wala loo mën a jënd njaboot gi yëpp noos amma 24 sa yónni wu ci 31 sa yónni wu ci ku mel ni imaamu malik rahimahullah daana wax ne day ka ca jëloon ab xaal rek toj ko ngir bis ba moo ka ca rey mbaam xuux di ko lekk ñoo yem daana wax ne bu leen dugg ca gaal yi ñuy dugg wala waruwaay yi ñuy dugg ndax mbëggalum yàlla mën na wàcc ci yéen daana wax ne imaamu malik moomu xatta yow mi nga xam ne da ngay jënd ak a jaay waroo bàyyi ba feeti chrétien yi ñëw ngay dem di jëndi loo xam ne li leen ko jaay ñu koy dimbali ko seen fet amma nag di leen may lu ñu dimbinikoo seen fet ci ay kado loolee moom dafa jéggi dayoo ci jéggi dayoo mu des ci it la nga xam ne mooy di leen félicité joyeux Noël joyeux nangam mbokk loolu ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk képp koo xam ne yaa ngi félicité ab chrétien ci feetu diineem moom nga fekkoon ko muy sujuutal ab croix nga koy félicité yéen a yem loolu ñu bàyyi xel ci loolu bu baax su ko defee mbokk jullit jullit du gërëm kéeféer ndax suñu borom nee na in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihi al kufr yàlla du gërëm ay jaam bi nekk ci kéeféer noonee ko yàlla ñàkk gërëme noonu la ko ab jullit war a doone lu bañ mu des benn mbir boo xam ne leerul ci bopp jullit ñi mooy lan li ñuy tuddee at tashabbuhu bihim wa mushabahatun lahum ca mooy nuru nurulu ak nurook mbokk nuru nurulu mooy lan mooy ki nga xam ne daa jublu nuru nurulu ay chrétien wala yahud moom daal bëgg mel na moom ba ku ko gis xam ne moom tubaab la xam ne moom nangam la mbokk loolu ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk yoo xam ne mën na laa dugal ci kéeféer waaye mu des koo xam ne dinaan ah noo man jubluwuma ci ay feetu chrétien jubluwuma ci nuru nuru leen mbokk nañ xam ne loolu suñu diine lislaam da koo leeral leeral yu bari ci ne jullit la muy defal yàlla jalla wa ala sax lépp loo xam ne nii mandarga chrétien la wala yahud loolee wuru caa dugg wuru ko def moo tax suñu borom yàlla ne wala taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina azabun alim keroog bi yahud yi utiliser benn baat naan yonent yàlla bi ra'ina ca ña ngi ci jublu ñoom ra'una mooy suñu nit ku doye digi julit ñi di wax ra'ina ñoom yàlla tax ñuy wax suñu borom wàcce aaya ne lii yahud yi di wax yéen bu leen ko wax ci loolu lañ gis ñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daan ñu wax ne bu ñu demee ba jant bi ne tëll di fenk yéen jullit bu leen kenn julli bu demee bay suux bu kenn julli ndax jamono jooju yéeféer yi dañ koy sujuutal bu leen nuru nuru la ak ñoom nodd gi bilal yëkk ci léegi bokk na bañ koy doog a bëgg a def am ñu ne nañu wut ab cloche yonent bi ne déedéet kon dañuy nuroog ak ak ak nasaraan yi donte ne buñ jëloon cloche bi dañ ci jublu woo jullit ñi kaay leen ñu julli muy jaamu yàlla gu rëy waaye mu ne déet dañuy nuroog nasaraan yi ñu ne kon nañ jul benn béjjën trompette mu ne ah non kon dañuy nuroog yahudi yi nan taal sawara déedéet dañuy nuroog majus yi muy wane ne kon loolu lañ dem ba baa yàlla wàcceel ñu xiiwal gu rëy gii di nodd foo dégg ak nodd rek bàyyil sa xel ne yàllaa ngi may fàttali ne ndax noddu ci yàlla la jóge yàllaa ngi may fàttali ne yow julit waroo nuroog yahud waroo nuroo akum nasaraan lii mbokk la ñu wan ne suñu jigéen ñi lislaam suñu borom yàlla subhanahu wa taala lan la wax ma yow yonent bi waxal sa soxna yi sa doom yi sa njaboot gu ak njabootu jigéeni julit ñépp nañuy muur seeni awra zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn nañu muur muuraay goo xam ne ku leen gis xam ne ñii jigéen ñi lislaam lañu duñ jigéen ñi caaxaankat daal di jàkkaarloo góor ñi sallallahu alayhi wa sallam ne ay yéen góor ñi bàyyi leen guddal seen sikkim yi wàññi seen moustache yi ngeen safaanoog yahudi ak nasaraan yi nga xam ne jàpp nañ ñu sikkim c'est incorrect lii mbokk ay mbir la yoo xamee ne nii bépp jullit dafa war a bàyyi xel ci loolu ñoo xam ne day njub ga gën a rafet mooy njubug lislaam njub ga gën a mat mooy njubug yàlla ñooñu ñi nga xam ne ñooy yahudi ak nasaraan yi teddaange ba ngay bëgg ci roy leen déedéet dañ lay xeeb rek dañ naan xoolal ñi amuñu culture amuñu dara li ñuy def la ñuy def boo demoon tey jii ci seen goxu dëkk ya biir Amérique biir France nga fekk fa bisu korité wala bisu tabaski chrétien yi fa dëkk seen yoon nekkul ci loolu laaj leen seen doom yi nekk Occident chrétiens yi fa dëkk seen yoon nekkul ci korité korité tabaski waaw lu tax ñun suñu dëkk l'islam quatre-vingt-quinze pour cent de musul de musulmans chrétiens yi nekk fi di feetu seen feet ñun jullit yi ñu gën leen koo feetu loolee mbokk da ngay gis na ak njuumte la waaye nag nit ñi jàpp ne la ëpp ñu koy def mooy ñàkk a xam yal na yàlla xamal ñu suñu diine yal na yàlla delloo ñu ci lislaam gën jaa rafet ci delloo yal na yàlla musal ñu ci lépp lu ñu yàq suñu pas-pas yal na yàlla rafetal suñu mucc wàcce jàmm ci suñu réew te te réew mi yépp ila siraatul mustaqim yal na yàlla may ñu ngërëmam adduna ak alaxira boole ñoog yeneen tam ak sahabaam ci àjjana yi gën a kawe allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin والحمد لله رب العالمين